alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa asxaabihi wa man walah amma baad mbokki jullit yi ñu fàttaliku ne xéewali sunu boroom ci nun day lu màgg ci diir bu néew rek noo ngi teeru woon weeru koor sunu borom baaxenu nu woor ko mu dem diir bu gàtt rek weeru koor a ngi ñëwaat te buñ xooloon kenn ku nekk fa nga nekk danga gis ne am na ñoo xam ne fekke woon nañ Ramadan daaw ren bi Ramadan di dellu si fekk denc nañ leen ci seeni bàmmeel te kat sunu boroom tabaraka wa taala moo xam ñan ñooy ñi nga xam ne lii mooy seen weeru koor wu mujj waaye laa chaque ne am na ñoo xam ne ñi ngi woor seen weeru koor wu mujj nit ki nag su dee dugg ci jaamu yàlla ku mel noonu nga xam ne benn occasion la boo xam ne ci at mi benn nga ko ci ame nga yëg ne bii nga koy ame ci at mi amaana mooy doon bu mujj ba kon da ko woor ca nañ ko santaanee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ku woor ramadaan te gëm yàlla rekk tax sàkku tuyaaba rekk tax jéggal nañ ko la wees woon ci bakkaaram waxaat ne ku taxaw naafila weeru koor gëm yàlla rekk tax ak sàkku tuyaaba yàlla jéggal na ko la wees woon ci bakkaaram waxaat ne ku taxaw laylatul qadr di ko jaamu yàlla ta gëm yàlla rekk tax ak jaamu yàlla rekk kooku jéggal nañ ko bakkaaram yi wees woon ñetti bunti njëggal yu yaatu ubbi nañ ko ci biir weeru koor muy woor ko naafila ko ak dàkk laylatul qadar kon bunta ngoo boo xam ne buntub àjjana la bu sunu borom tabaraka wa ubbi kenn ku ne nag li ngay faral di xemmem mooy occasion bu ramadan bu agsee fas na maa yéene def nangam fas na maa yéene def nangam xeetu yu wu baax wu nekk nga xalaatal ko sa bopp fas ci yéene defar sa bakkan kay ca nekkoon ci ay bon bon ak i caaxaan fas yéene ne bu dikkee damay tuub damay dellu ci yàlla damay def lu baax danaa def nangam saa boo xamee ni nit ki mébét na yooyu ba weeru ramadaan ñëw rek li gën a bari su wattandikut seytaane da koy nax ba day jékki-jékki gis ne weer wi dem na te lam doon mébét li ci baree bari defu ko bu xoolee lan la jàng ci alxuraan gis ne tuuti la bu xoolee lan la def fi sabilillah gis ne tuuti la bu xoolee xeeti yiw yu bari nga xam ne du jeex lan la ca def bu xoolee day gis ne lu xeebu la kon fekk na bakkan ba kóllëre gëm façon ne moom laa fas yéene war na kóllëre googee guddiyee di jàll bëccëgee di jàll ba day jékki-jékki rek delluwaat fa mu nekkoon mel ne duggul woon weeru koor kon yàlla nu yàlla musal ca lu mel noonu mbokki jullit yi weeru koor ab tereet la boo xam ne tereetu commerçant yi wut tuyaaba la commerce day am waxtu woo xam ne mooy waxtu njaayam wi mu war a gën a mën sonne ci jaay ndax bénéfice am mën a jëm kaw kon weeru koor ci jaamukatu yàlla bi mooy tereetam kon mbokki jullit bi ramadan bii di ñëw sa ban ramadan la ndax mooy ramadaanu tàyyeel ak ramadaanu yeexe mbir ya leen lu ne nga ne fas naa ko yéene danaa def nangam danaa def nangam wala ramadaanu njëkkante ci yiw la war a doon course ndax ramadaanu tuub la dellu ci sa borom bàyyi caaxaan ya wala day doon ramadaanu càggante ci yow ndax weeru koor wi ñëw da nga ko fas yéene boole woor ko ak naafi la ko ba jeex wala da ngaa fas yéene rek mu doon weer woo xam ne da nga koy prépareel ay lekk bu jubee looloy nekk ci sa xel lu ma war a dogee lu ma war a xëdde bu guddee toog ci ay film di seetaan mooy doon sa yitte moo xam ci internet la moo xam ci beneen mbokki jullit yi ramadan niñ koy waajale mooy toog leen réglenteeg sa bopp ni jaaykat ba di def dem ba mu yàgg am waxtu woo xam ne li ñu tudde inventaire day toog di xool lam def ci li mu weesu lan la ci jot am ci bénéfice ak lan la ci perte ak lan mooy sabab yi tax mu perte lii ba duutu ko dal bu ëllëgee ak bénéfice boobu mu amoon fan lay jaar ba mu yokku noonee muy def waxtu ramadan loolooy waxtoom jullit bi buy dugg ci ramadan na toog ak boppam xool ayib yi ne ci moom te bàyyi ayibi jàmbur yi muy seet xool moom ñaata nit la jëw ci at mi lu mu lekk ci alali jàmbur te waru ko woon a lekk lan la def ci ay mooy yàlla lan moo doon jaamu yàlla yoo xam ne romboon nañ ko mu mën caa jariñoo te jariñuwu ca mu rekk leen teeg boppam yar boppam ci loolu fexe ba tuub bu dee alali jàmbur mu delloo ko bopp boroom bu dee kum jëwoon mu jéggalul ko ñaan sun borom jéggal ko ay bàkkaaram ndax loolu far lépp loo xam ne defoon na ko ci lu bon mu dem ko fare leneen loo xam ne lu baax la ndax borom bi tabaraka wa taala jéggal ko ci loolu kon noonu lañ koy waajale xool sa mboolem gàttañ yi nga defoon moo xam gàttañ lu tawxiid la ndax léeg-léeg mu am léeg-léeg nit ki tàbbi ci bokkaale te fekk tëyu ko wala jubluwu ko sax loolu moo tax muy tuub fu mu toll léeg léegi it mu tey ko ndax pas-pas bu baaxut kon jéem a góorgóorlu defaraat pas-pas yi ci suñ diggante ak suñ boroom xam ak yàlla ñu jox ko ko moom dong bañ ko boole keneen wala muy ak gàttañ la woo xam ne dafa aju ci jaamu yàlla yi moo xam julli yàlla wala koor yàlla ba ci koor yi ngàtt sax ndax kooru gàtt nga bunt la boo xam ne buñ ubbi la boo xam ne nit ki war na cee góorgóorlu kem kattanam lii ñu dese ci weer wi ñu bari dañoo jàpp ne wari suta moor woor ci fukki fan ak juróom yu mujj waaye waxu kay mënees na cee woor kon bunt koo ngàtt nga mi ngi ba tey bunt ku yore woon bor mu fay ko ba tey mi ngi ubbiku kon jéem góor góorgóorlu ci gàttañ lu yi amoon ci jaamu yàlla yi nga jéem caa taxaw kooku ñu ngi ci waxtoom ba keroog koor gi dugg lépp loo xam ne xeetu bànneexu bakkan la bu nit ki toppoon mu jéem a xeex ak moom ci weeru koor wi lépp loo xam ne ay lënt yu nekkoon ci boppam la ci xam-xam aju ci yu ko nuróog ay gëm-gëm ak yu mel noonu mu dem ci boroomi xam-xam yu ko ca tane ndax mu mën a faju ba lënt yi nekkoon ci boppam mën a jeex tàkk su ko defee ci biir loolu lay defare boppam ba jikkoom baax ay jaamu yàllaam baax mu nekk ci daraja ju kawe ci gëm yàlla tabaraka wa taala mbokki jullit yi sunu borom tabaraka wa taala wax na ne yàlla bëccëg bu nekk day tàllal loxoom ne ana ki defoon bàkkaar ci guddi gi ndax ma mën koo jéggal ndax mu tuub ba ma jéggal ko bu guddee day tàllal loxoom ne kan moo defoon bàkkaar ci bëccëg bi ba bu tuubee ma jéggal ko kon kooku occasion bu mag a mag la boo xam ne waru koo sàggane sunu borom nee na wa saari'u ila maxfirati min rabbikum wa mooy jëkkante leen jëkkante leen rawante jëm fan nee na jëm ci ak njéggal bu tukkee ci seen borom ak àjjana joo xam ne yaatuwaay ba gën naa yaatu wala toll na ne asamaan ya ak suuf ya ajjana joo xam ne yow sa kër ci boppam boo demee ba dugg fa gën naa yaatu wala yaatoo na ne asamaan ak suuf kon lu yaatu la uiddat lil muttaqin nee na su boobaa lam ñamoom loola mooy ñu ragaloon seen borom loolu kon jar na musaaraa muy jëkkante su fekkee am na loo xam ne nit ñi dañoo war a jëkkante jëm ci comme ni ñuy jëkkante àdduna tey kon loola mooy la jëm àjjana kon jullit yi loola war nañ ko bàyyi seen xel bu baax a baax xam ne jëkkante foofa la nekk waaye nekkul feneen almuttaquun muy ñu ragal yàlla ñi nga xam ne borom bi tabaraka wa taala waxoon na ne bi muy farataal koor ci nit ñi li ko tax a jóg mooy mu mën laa def nga bokk ci ñooñu kutiba alaykum siyaamu kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaquun ñu ragal yàlla ñooñu mu ne alladina yunfiquuna nee na mooy ñi nangoo joxe seen alal di dépenser fi sarraay moo xam dañoo nekk ci jamono yi naataange wa darraay wala ñu nekk ci jamonoy yi xat-xat lañ am daal muy tuuti muy bari danañ ca jox fi ñoo ñu bokk ci seen melokaan nee na dañuy mën a mer ba noppi nëbbu ko duñ def suñ meree rek fayu dañuy nëbb seen mer wala marta ba ba ko gën a kawe mooy dañuy jéggale sax faf ka leen merloo marta ba ba gën a kawe waat mooy wallahu yuhibbul muhsinin dañuy fekk ku leen tooñ sax faf ñu rafetal jëme ci moom kon ñetti marta la ki mere nit ki ba noppi ne cell fayantoo wut kooku def na lu baax jéggal na ko def na lu gën a baax def la rafet far jox ko jëmale ko ci moom kon loola nag mooy martaba ba gën a kawe loolu lépp ci melokaani almuttaqin muy ñu ragal sunu borom tabaraka wa taala ci la bokk ñooña ba tey mooy ñi nga xam ne suñ defee lu ñaaw suñ defee bàkkaar wala ñu tooñ seen bopp fàttaliku seen borom daal di yu seen bàkkaar kooku bokk na ci melokaani ñi ragal yàlla ndax waxuñu la ne kat ki ragal yàlla day daal di nekk maasum maanaam day daal di doon koo xam ne du tàbbi ci bàkkaar mukk mu kay nit ki fekk mi ngi dund te doonul ab yonent faaw nag muy tàbbi ci bàkkaar waaye soo ci tàbbee du yeex day daal di gaaw nee na su ko defee seen borom tabaraka wa moo leen di jéggal bàkkaar yi ndax moom rek moom mooy jéggal bàkkaar yi waaye ku ragal yàlla du def bàkkaar ba noppi nuur ca di def di defaat rek bañ a tuub walam yusirru ala ma faalu lu dul bàkkaar nag boo xam ne yëguñu ko xëy na ñooñu borom bi nee na mooy ñi nga xam ne seenug pay mooy njëggalug yàlla seenug pay mooy ay ajjana yoo xam ne dex yaa ngay daw ca suuf te buñ fa dëkkee dañ fay sax fawwu sunu borom daaneele ne wa ni'ma ajrul amilin nee na payu ñi nga xam ñoo doon jëf mooy pay gi gën ci pay yi payu ñi doon jëf mooy pay gi gën ci pay yi <coughs> jëf nag buñ ko waxee wax a ngi ci biir pas-pas a ngi ci biir jëf a ngi ci ndax jëfi làmmiñ mooy wax kon lu baax lay wax jëfi xol mooy fas kon lu baax lay fas jëfi cër leer na naa ñi mooy la muy def ci ay jaamu yàlla yoo xam nit da ci teg bëtam borom bi tabaraka wa taala nee na yaa ibaadi yéen sama jaam ñi nga xam ne da a def lu ñaaw da ngeen a tooñ seen bopp bu leen naagu ci yërmaande yàlla bu leen defe ne mënatu leen am yërmaande yàlla de ndax yàlla mooy jéggal bàkkaar yépp ci ku tuub ndax moom mooy jéggalaa kon bi te mooy borom yërmande ji kon sa bàkkaar lu mu rëy rëy bul ne bii bàkkaar su ma ko tuubee duñ ma jéggal amul bàkkaar boo xam ne bu ko nit ki tuubee duñ ko jéggal kéefar ak bokkaale mooy bàkkaar bi gën a kawe nit ki bu ko tuubee yàlla jéggal ko ci ay sartam kon weeru koor mooy weeru barke mooy weeru yërmande <coughs> mooy weeru topp yàlla mooy weeru def lu baax waaye mooy weeru rafetal di weeru sàkku ak njëggal sàkku ngërëm sàkku ak goreel ci sawara yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na weeru ramadan su duggee rek bunti àjjana yi ubbiku na dañuy ubbi bunti yépp ñu af ñu tëj bunti jahannama yépp seytaane yi nga xam ne ñoo doon yàqal nit ñi ñu jéng leen ba dootuñu leen mën a yàqal kon kat yow jaamu yàlla bi yow mi woor yàlla jéngal na la seytaane ba du la mënal dara ndax boo ko seetloo ka seytaane di mënal dara toujours mooy koo xam ne dafa nekk ci biir ay bànneexam akuk lekkam akuk naanam ndax ci bunt yooyu la koy jaare waaye yow mu nekk ci sa koor sa borom tabaraka wa taala jëngal na la seytaane yi da ci dégg it ne kii woor mooy am loolu waaye kat ku weeru koor ñëw ngay taxawal di lekk ka naan ko bokkoo ci yooyu seytaane mën na laa dugal fu ko neex da ci déggee it ne yow mi woor ba noppi di def ay caaxaan amoo lay bul lii seytaane rekk la seytaane moom jéng nañ ko ginnaaw da ngaa woor léegi sa bakkan moo fa des ak sa bànneex àgg ci weeru koor bu ñuy jàng taarixu as-salaf danañ gis ne bokk na ci li li leen gënoon même ma gënoon kawe ci ñoom mooy mën a àgg ci fekk weeru koor ba man kaa jariñu balaa jàll ndax xamoo da nga fekkiwaat weneen am moo tax dañuy wax la ñoom dañ daan toog juróom benni weer six di ñaan yàlla àgg ci ramadan buñ ci àggee ba woor ko ba jàll toogaat lu tol noona di ñaan borom bi tabaraka wa taala mu nangul leen ko nangul leen la weesu at mi noonu lañ ko séddalee woon ramadan weeru tabe la ak joxe yan abdullah ibnu abbas nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo doonoon ki gën a tabe ci nit ñi loolu moom moo doon bindam keneen ku mel noona ci tabe amaatul woon waaye nag nee na bu weeru koor masee dugg nag ci lay gën a tabe moom yonent bi ndax waxtu la woo xam ne daanaka day fàtte àdduna ak ci biiram mu di jamono yi nga xam ne jibril day wàcc ci moom guddi gu nekk di toog ñuy jàng alxuraan <coughs> muy jàng jibril di déglu di tari tari alxuraan nee na jamono jooju bànneex bi muy yor ak yëg-yëg bi muy yëg moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam damay fàttaloo àdduna ak li ci biiram ba nga xam ne ni muy tabee ni muy joxe ci weeru koor du ko def ci weneen weer wu ne ci wenn weer ànd ak ni mooy ci gënoon a tabe ci nit ñi moo tax mu ne yonentu yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam ni mu doon tabee sax raw na ngelaw luy romb di dem mbokki jullit yi am na ci nit ñi ñoo xam ne dëgg la danañ góorgóorlu ci ramadan waaye ci ramadan rek la ñuy xam seen borom su ramadan jàllee ñu bàyyiwaat kooku musiba la am na ñoo xam ne seen yëg-yëg ci ramadan mooy jàpp ne ab yan bu diis la boo xam ne buy ñëw dañuy ànd xat-xatu xol ak njàqare ak metit di wax ne xiif ba dikkati na marwa dikkati na su ko defee seeni xalaat rek mooy lu ñuy dogoo bu ñuy dog ak lu ñuy naan bu fekkee dog nañ foofa la seen xel di jëm waaye xalaatuñ ne ak jaamu yàlla goo xam ne dañuy yàkkamti mu ñëw la kon boobu kuréel yal na yàlla musal ci ñëw weeru koor weeru yëg sa mbokki jullit la ak fu ñu mën a nekk ci kaw suuf ak seeni metit yëg googee la muy jur mooy ñaanal leen ku ci nekk ci metit sa borom tabaraka wa taala génne la ci ki su xiifee ci bëccëg bi fàttali ko xiifam dana yëg ne am na ci kaw suuf nangami junniy doomu aadama yoo xam ne loolu mu yendoo ci bëccëg bi ñoom seen fukki weer ak ñaar yépp ci loola lañu nekk la ñuy séentu mooy fu ñuy jële ab tib ba lekk am na ci kaw suuf ñoo xam ne noonu lañ mel kon xiif boobu mu xiif dana ko fàttalikuloo ñooñee jamono yi nga nekkee ci biir weeru koor mar ba yëg ne mar nga danga nga fàttaliku ne am na nit ñoo xam ne ci kaw suuf ay nangami junniy doomu aadama seen xemmanteef buñ tëddee duñ nelaw ndax ñu ngi xalaat lan laa war a xëy naan bu ma xëyee lan laa war a fóote lan laa war a jox samay gone lan laa war a jox sama jur ndax boo demee amu ca dara dara dara wala bala koo am dana dox fukki kilomètre roote fa dara door ko yanuwaat delluwaat ci këram door a mën a amul ndox kon jamono yi mu maree dana yëg ne am na mbokki jullitam yoo xam ne ñu ngi dund loolu muy yëg bu bisu it ba ñëwee bañ ne ko solal lu yees dana yëg ne am na ay jullit yoo xam ne ay nangami julli junni lañ ci kaw suuf ñoo xam ne bala ñoo sol dara dañoo dem ca mbalit ma xool ya ko nit ñu sànni ñu fortaatu ca dara raxas ko dikk suturi ko suturaale ko seen awra yëg-yëg boobu dana ko yëg ci digganteem ak mbokki jullitam mbokki jullit yi wax naa ne ramadaan weeru def yiw la def yiw nag ñépp a ko mën ndax kenn ku nekk am na lu la yàlla jox ki yàlla jox ñaari dërëm mu jël benn ba def ko fi sabilillahi kooko xamal ne moo ki yàlla jox ab milliard mu jël juróomi téeméeri million joxe ko ñoo toll kenn ku ne joxe nga sa genn wàllu alal kenn ku ne joxe nga sa genn wàllu alal kon ku nekk mën nga dara suñ jàkka ji nag walla seen jàkka ji weeru koor wu nekk xam ngeen ne baaxoo na di ubbi buntub dogal ñi nga xam ne dañoo woor ba ngoon te amuñu luñ doge mu doon buntu sàkkoo tuyaaba bu yaatoo yaatu mbokk yi danañ leen ko leeral leeralal nañ ko daan leerale bu soobee yàlla ci jataay bi wala ci xutba yii ñëw ngeen xam ku bëgg dogal benn doomu aadama loola nu mu toll su ko defee nañ ko daan organiser rek lay deme ku mën a dogal benn nit mu joxe loo xam ne mën naa dogal kenn nit ku mën a dogal lu ma fukki nit mu def ko ku mën a dogal téeméeri nit mu def ko su ko defee mu doon organisation boo xam ne bu waxtu jàng jotee nit ñi dañuy daje bi jàng ba dog jot ñi dog bu lekk jotee ñu lekk yeewiku wala ñu toog ba naafi la ba ëllëgati kon loolu nem fi daan insha allahu noonu la fi amee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa diggee ci loolu lu rëy ndax nee na ki dogal ku wooroon ki nga xam ne dafa woor ba ngoon amul lu mu doge wala mu am ko sax nga jox ko mu dog am nga yool bu toll ne koor ba mu woor moom te loola du wàññi dara nag ci koor ga mu doon woor maanaam yow da ngaa yendoo ba ngoon am nga sa yoolu koor yow sa mbokkum jullit woor ba ngoon amut lu mu doge wala mu am ko waaye yow yaa ko dogal ca bis booba am nga tuyaaba ju toll ne jëm am ca kooram ñi dollil la ko ci sa tuyaabay koor yow ba noppi loolu du wàññi dara nag ca tuyaaba am moom maanaam la ma waroon am da koy am moom itam maanaam du caagi ne dañuy jël tuyaaba am jox la waaye borom bi tabaraka wa taala moo lay may kon nag loolu ab soññee la boo xam ne day tax jullit bi lu am amam néew néew war naa niser ne man weeru koor bi balaa jàll danaa dogal doomu aadama wala ñaari doomu aadama wala téeméeri doomu aadama ci ko kàttanam mate kon bunt bii wangoog bu ubbiku jëkkante leen wa saabiqu la suñ borom tabaraka wa wax jëkkante leen jëm ci bunt yi kon bunt yi wangoog bala maa jeexal danaa sant itam waa jàkka ji ndax dañoo woote woon ab liggéey boo xam ne am yuñ doon mottali ci jàkka ji moo ko waraloon muy sooroor boobu yi mu dendal loola bu ngeen xoolee da ngeen gis ne daanaka ci ak àgg la tollu kon sant sunu borom tabaraka wa taala di leen sant ci effort boobu di ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu nangul leen ko su ngeen xoolee da ngeen gis ne ay soppiku yu baax a baax a baax yu am solo am na fi yoo xam ne yéen yéen a ko def kon loolu daf lay jox ne liggéeyub lislaam liggéeyu mbooloo la su ku ne defee tuuti rek boo ko boolee mu doon lu bari loolu su ko kenn doon jéem a yenu moom dong dana sonn lool te bu wëttuwut naal wu yàgg lay doon waaye nag bu kenn ku ne defee tuuti borom bi tabaraka wa taala mooy barkeel kon liggéeyub lislaam laaj na mbooloo muy liggéey waaye laaj na it ay loxo nag yu sell yoo xam ne yu wóor la yoo xam ne su dara génne jëm ci dara day àgg fa mu jëm kon ñaari mbir yooyu lañ aajowoo rek nun jullit yi ngir nu mën a def nag lu baree baree baree bare naali lislaam nag akub liggéeyam du jeex suñ bërëb bi ak bépp bërëb suñ sañoon bérébu jaamukaay yàlla yi jàkka yi ñooy doon bërëb yi gën a rafet gën a sell gën a set ci béréb boo xam ne doomu aadama dana ko dana koy dugg kon naal yi ñu ngi fi ba tey dëgg la liggéey bi moom daanaka àgg na waaye salle de conférence bi ci kaw <coughs> ñu ngi toll ci di ci def ay meuble am na mbokk moo xam ne sant nañ ko ko ba jot na ca def ab liggéey bu am solo am na loo xam ne dindi nañ ko teg ko ci loxoom loo xam ne doonut lu ñàkk solo ndax ëpp na cinquante pour cent ca la doon laaj waaye ñoo ngi ko yoreel ñaari million yu tege ci sunu loos yoo xam ne yu ñu ko war a joxem la kon liggéey bi ba léegi mu ngi continuer bu jeex bu nekk rek dana am ku fa sës ndax bunti yiw la yoo xam ne kenn bëggu koo jagoo bàyyi sa mbokki jullit waaye dañ koy yëgal ñëpp ki yor benn cinq francs mu def ko ci fekk ko ca bàmmeelam ëllëg ki yor lu ëpp loole itam noona rek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 wa salli allahuma wa sallim ala abdika wa rasulika muhammad wa ala alihi wa ashaabihi ajmain